jëm ci sunu boroom subhaanahu wa taala jamono yi nga xamee ne yéen a ngi jug jëm ci seen boroom ni ngeen ànd akuk lant ànd akuk dal wa qumu lillahi qaanitiin loolu sunu boroom ci julli la ko wax boroom bi nga xam ne ci alquran daa wax ne julli day yan bu diis la xanaa ñi ragal yàlla ñoo koy jàppe lu woyof ndax bànneex bañ cay am noo ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mbooleem koo xam ne jaamu na boroomam rawatina ci jaamu yàlla gi ñu wax julli moom lañ xam mu gën caa sàmmonte ak la yàlla sa boroom sàkku ci biiru julli mbokki julli di julli ci ponk lislaam yi gën a màgg ci la bokk ponk lislaam yi nga xam ne dañ koy jëfe di ko pratiquer waaye julli googu am na lu mu laaj mooy yëg yàlla ci biir julli gi toroxlu ci kanam sunu borom subhanahu wa ci biir julli gi loolu daa bokk ci li diine lislaam di yittewoo di ko sàkku noonu yàlla bi ñuy wax iblis laanatullahi alayhi dafa jëloon kóllëre ci réeral doomu aadama yi ak fitnaan leen wax yàlla ne ko doomu aadama yi nga xam ne man naa ne sama alkande sama alkande ngi bàyyi koo ci ñàkk gu ma ñàkk su jootal seen maam ci sa ndigal danaa leen dikke wet gu ne ci seen ndijoor ci seeni càmmooñ summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim ci seen kanam ak ci seen ginnaaw amul genn wet goo xam ne des na fa bett doomu aadama man ko faa yàqal lu may nga xam ne danaa jaar ci wet goo gi loolu bam ko waxee ci kanam sunu borom yàlla ba àggal borom bi weddiwul lam wax waxut yi tam ne da koo mënut waaye daa wax ne man de samay jaam doo leen mënal dara amoo ci ñoom ak noteel bi nga xamee ne Iblis jël na engagement boobu warlu na ne dana def loolu bokk na ci pexeem yi gën a rëy mooy fab bi doomu aadama yi julli gi nga xam ne. moo gën a màgg ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi bu ñaari baati seede yi jàllee di jax-jaxeel doomu aadama yi ci seen biiri julli ngir xañ leen bànneex bi nekk ci biiru julli waaye bëgg jaam ñi julli buñ solmalee duñ ca am dara ndax julli du mooy yëngu yi rek la yàlla sa soxla rukuu ak sujud boo xam ne jaw fa dara newul ca biir loolu yàlla sa borom soxlawu mbokk yi alxusuu muy ak teewlu yëg yàlla sa borom màggaayam ci biiru julli mooy njëkk a jóge ci xeet wi moo tax fa kenn la ci saxaaba yi day wax ne yéen day seen diine li ngeen ci njëkk a ñàkk mooy alxusuu diine lislaam ndigal yi bari na lool waaye ndigal li nga xam ne moom ngeen ci njëkk a ñàkk mooy alxusuu mooy ak teewlu yàlla ak màggaayam ci biiru julli daana li ngeen di mujj a ñàkk nag mooy julli lu àddina doy waar doy waar rek du tee gis kuy julli waaye balaa kuy julli koo xam ne sàcc ba ñuy dàq ngir ne daa am lum jël te mu yëfi jàmbur ko keedi julle ko ɗaka sacci ndax ma ngay sacci ci biiru jullem loo xam ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo ko tudde ab sacc buñu accès ci xadis bi danañ ko tudd xoday fa nee na danañ dem ba jëmmi jamono ci kanam tuuti nga dugg ci jàkka gis ñëppi julli waaye doo ca gis xaasheq doo ca gis koo xam ne mandragam xusuu ma nga ca moom yi nga xam ne nag day waral xusuu ci julli ñaari mbir dong la ñaari mbir yooyu menn mbir mi danañ ko indi ci sunu xutba bi menen mbir ma ca des ñu ajandi ko julli dafa am yoo xam ne dalay ñoddil xusuur dalay ñoddil ak teewlu ci biir julli gi dala ciy dimbale waaye daa am yoo xam ne dafa war a jóge ngir nga mën a am xusuur googu bi jiitu ci mbooleem yi nga xam ne moo nekk ci sunu kanam mooy al istidaadu li salaati wa tahayyu ilaha ak julli dañ koy waajal ak julli dañ koy waajal moo ne sun tukki addina yi rek dañ koy waajal de ku ci waaja tukki trois heures wala quatre heures ku ñëw ci kër gi rek dana xam ne yow mi ci ab tukki booy waajal ci nga nekk ci defaraat say daal ci defaraat sab saak ngir lan bëgg a tukki doo gis mukk joo jenn jëmm ci àddina muy waaj a tukki dem ba dix minutes des ca tukki ba mu soog a jublu ca waaj ga déedéet daa bokk na ci li ñuy waajale julli mooy noddukat bi soo ko déggee muy nodd am na lu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sant ida sami'tum al fa qulu mithla ma yaqulu al muaddin saa yu ngeen déggee am noddukat di nodd na ngeen wax lu mel ne la muy wax suné allahu akbar yow itam nga ne allahu akbar xanaa mu ñëw ba ci xaya ala salaah wala xaya ala alfalaax foofee moom dañ laa sant nga ne laa xawla wala quwata illa billah xoolal ki nga xam dégg nag nodd mu ànd ak noddukat ba te nodd googee di ab woote bu bàyyi ko ci yàlla woo gumi woo ay jaamam ci ak texe noddkat ba naan xaya ala salaah xaya ala alfalaax ñëw leen ci texe gi nattaleel ci sam xel bu amoon koo xam ne waxtu jot day taxaw ca buntu jàkka ja naan ñëw leen jël seen nangam ji nga xam ne ci àddina la aju benn ay million la wala ay junni la ñëw leen jël seen wàll ci xaalis bi foog naa ne fees dell la jàkka jay def xoolal baat bi noddukat bi wax xayya alal falaax ñëw leen ci texe gi te muy ak texe dëgg-dëgg ndax suñ borom yàlla moo ne ci alquran qad aflaha almuminuun alladina hum fi salatihim xaashiuun kon ànd ak noddukat bi sallahu léeg-léeg nga gis koo xam ne ay jàkka yu bëri danañu nodd ci wetam amu ci benn bu muy topp ca la muy wax mi ngi ci moom mbiram mi ngi ci mbiram amul benn noddukat bu muy àndal ca la muy wax noona bu noddukat ba àggalee nga jàng ñaan gi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne saa bu am noddukat daanalee ak noddam saa bu daanalee ak noddam ni ngeen ko wax allahuma a hadihi daawati taama banaan bañaan nga jeex noonu njàpp mi nga xam ne moom ngay waaj a ñëwee ci jàkk ji nga rafetal njàpp mi bu fekkee sax day day jar nga dem nafaraat njàppum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nam daan jàppee nga góorgóorlu gam-gamle ko ak ni ngay jàppe ndax niroo na wala niroowut su niroowut bàyyil ni ngay jàppe taj fekk yonte yàlla muhammad ci nam daan jàppe nga rafetal njàpp mi noona itam booy ñëw ci jàkka ji ñaan gi yonte yàlla muhammad jàngale allahuma jaal fi qalbi nuura wa fi basari nuura wa fi lisaani nuura wa fi sam'i nuura wa min fawqi nuura wa min taxti nuura ñaan gu gudd la yàlla saa xol bi def ci leer yàlla saa làmmiñ ñu def ci leer yàlla saa dégg gi def ci ak leer yàlla sama jis bi def ci ak leer yàlla sama kaw def ci leer sama suuf def ci ag leer sama càmmooñ sama nijoor sama xol bi sama fépp nañ ci def ag leer bal wa azim li nuura leer gi may jox nang ko màggal réyal ko loolu xoolal ki nga xam daa jëm ci jàkka ji di ko wax te ak seegul ci julli noona bi duggee ci jàkka ñaan gi war a ñaan ci kuy dugg jàkka wax ko fekk sol na yére ya gën a rafet yaa bani aadama xudu zinatakum inda kulli masjid na ngeen waaj bu ngeen di julli si loolu suñu borom yàlla moo ko wax ba nga ñëwee ñu yemale sàppe sa nga yëg ne sàppe sa dañ ko war a yemale nga ànd ak ña nga xam ne ñoo yemale sàppe sa ca yemale sàppe sa loola daa bokk ci li ñuy waajale julli ca salafu saalix dañ ci daan gis koo xam bi waaj julli mbaa mbaa timis day mel ne kuy waaja a tukki tukki bu sori ci tukki àddina yi ngir bàyyi gum bàyyi xel ne am na ab taxawaay bu mën a bu mu nar a am ci kanam suñu borom subhanahu wa ñaareel bi mooy ci biir julli gi nga ànd ceekuk dal sallaahu léeg-léeg nga gis ko julli koo xam ne doo xam dëgg dëgg dëgg ndax day gaañ boppam sax wala day julli koo xam ne bu rukkooyee balaa àgg ca rukkoo ba siggi bu siggi woon tey ji balaa ne jonn jàllaat noona lay def ba julli ga jeex sallallahu alayhi wa day daawut jullee noonu moom day kaana yatma innu xatta a kullu azmin ila mawdii su ma saana siggi day taxaw jonn temm ba nga yëg ne moom mi taxaw na bu ma saana jóge ci sujood itam noona lay def nga xam day ànd ak ku dal sallallahu alayhi wa sallam nee na abu qatada aswa unnaasi sariqa alladi yasriqu min salaatihi sàcc lu bon a bon la waaye am na koo xam ne càccam gi ñaaw gi mu ñaaw daa jéggi dayoo abu xataar ne ko yaa rasulallah ndax nit dana sàcc ci ak julleem mu ne ko waawaw laa yutimu rukuaha wala sujudaha koo xam ne rukoo ya du ko matal sujoodee du ko matal kooku ma ngay sàcc ci biiru julleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu wax ne koo xam ne say rukoo du mat say sujood da koy cof da mel ne ku xiif koo xam ne ñaari tàndarma nga lekk wala benn tàndarma du la fajalub xiif julli li tax suñu borom subhanahu wa ko jaam ñi bu fekkee ne defewoo ko ni nga xamee ne noonu la ko yàlla santaane loo gën di doon mag di gën di maanaa dem da gis ne daanaka doo jëriñu dara dara dara ci biir julli gi bokk na ci liy dimbale doomu aadama ci biir julli gi mooy mu jàpp ne maanaa julli gii lay mujj julli ci àddina julli gii mu taxaw nii di ko julli mën naa am cila ak faatu di ñëwee mën naa am cila ak faatu di ñëwee mu mel ne daal koy tàggoo loolu abu ayuba yent yàlla muhammad neewoon ne ko salli salaatam waddiq moo ne day loolu gis nañ ko ba tàyyi gis nañ kuy sujóot dem faatu ci sujóot ba gis nañ kuy rukoo faatu ci rukoo ba kooka de bu fekkoon ne jamono ba muy faatu ma nga àndeku teewlu suñu borom subhanahu wa taala kooku de ak mu jëm mujj rafet rafet la bokk na ca mooy ngay seetantal laay yi ngay jàng loolu moo tax di fekkee jataay yi nga xam dañ fay leeral alxuraan mënul ñàkk alxuraan wax yàlla la joo xam ne su fekkee ne jaam bi biñ koy jàng mi nga xam li ñuy jàng lu mu doon sallaahu du ca doyal menn mag moo xam ne màgget na lool kenn ci quraaw yi mi ngi suñ jamono sax nee na damaa sëlmal fekk damaa jàng suratu almaida mu daa ne ma jàll jàngalaat nu saar wi ci topp muy la laaraaf te boo xoolee day mel na mën a taxaw waaye dégg gi muy dégg kàddu yàlla ak xam gi mu xam li yàllay wax loolu moo neex ci moom kon di settantal laay yi ngay jàng ci biir julli gi dana la dimbale ci man caa teewlu sunu borom yàlla nee na kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak li yadabbaru ayaati dañoo war a settantal aay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak julleem noona la daan def su rombee laay joo xam ne day wax ci mbirum yërmaande mu ñaan yërmaande door a jàll ci niral buñ ne yudxilu man yashaau fi rahmati yàlla day ci yërmandeem ku ko neex la cay dugal mu daal di ñaan yàlla foofa day yàlla nga ma dugal ci sa biir yërmandeem su yàlla ne wasalullaha min fadli ñaan leen yàlla ci ngëneelam mu ne ah, yàlla day maa ngi lay ñaan ci sa bu yàlla waxee ci laaya di tëkkuwaate mu ñaan yàlla musal ko ca tëkk yooyee yonent yàlla muhammad noonu la daan jullee sallallahu alayhi wa sallam said muy jiite doomu aadama yi ci ramadan idil aghlaalu fi a'naaqihim was-salaasilu yushabuuna fil hamiim neen da koy baamu di ko baamu da wax di ko baamu di ko baamu lu tax dafa ànd ak maanaam xam li yàlla sa borom di wax. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu yaay Aïcha nee na du ma fàtte mukk guddi gi nga xam ne daa tëdd fi man ba àggal ba yàgg mu daan ne ma darini ata'abbadu li rabbi bëgg ngaa wetli ko sama jëm lool waaye bàyyi ma ma dem jaamu ji suñu borom subhanahu wa taala ci guddi gi nee day. naafila ronkoñ yi di sotteeku di sotteeku di sotteeku ba sikkinam bi dafa simboo ronkoñ muy wéy di jàng di jàng ba barab bi mu toon jullee dafa mujj tooy xip xip xip xip bilaal bi mu ñëwee fajar gi daal ne ko yaa rasulallah ndax dangay ngay daj lii ngay daj nii te yàlla baal la sa bàkkaar yi jiitu ak ci mujj yëpp mu ne ko afala akunu abdan shakura daa ne ko bii ci guddi day nañ ci man laay joo xam ne waylun liman qaraa walam yatadabbaraha mbugal ñeel na képp ku ko jàng ta seetantaloo ko te mooy inna fi xalqi samawati wal ardi waxtilaafi leyli wa nahaari la ayatin li ulil albab bokk na ci liy dimbale doomu aadama ci biir julli mu mën a teewlu mooy mu bañ a gaawantu laaya laaya bismillahi arrahmani arrahim taxaw ab diir alhamdulillahi rabbil alamin lii de mooy sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noona bu fekkee mën nañoo neexal njàng ma neexal njàng moy mooy ko ci atte yi nga xam mom lañ santane ñu war ko jànge alquran nañu wara a xëcce fañu wara la jaadu ñu wara nosal baat fofa loole lepp ñu bayyi ko xel ci biir julli day ñu dimbale ci mëna téwlu teewlu bi itam ñu yegg ne yalla ngi wax ak ñu ci biir julli gi alhamdulillahi rabbil alamin bi nga ko waxee yàlla nee na sant nama nga ne arrahmanir rahim yalla ne sa jamba kañ nga ne maliki yawmiddin mu ne bak nama nga ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yàlla di wax ak yow fekk yaa ngi ci biir julli gi loolu boo ko teewloo lu rëy fi yow lay doon da doon la dimbali ci ak julli bokk na la dimbale doomu aadama te waroom xam yi wax ko mooy sa loxom ndijoor bii nga teg ci sa loxom càmmoñ bii ne ret ci kanam suñu borom subhanahu wa taala ahmad ibnu hanbal laaj nañ ko lii moom lana tax mu ne loolu day wane jaam boo xam day mel ne dañ ko téye ci kanam suñu borom subhanahu wa taala dana ko dimbale itam ba ay wokkutoog dugal loxoom feeg yépp du ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñun yonent yépp yàlla loolu la ñu digal inna maashira al anbiya umirna an nadaa aymanana ala shamailina amul benn yonent bi moo jaar fii ci àddina lu may noonu la daan jullee mbokki jullit yi bokk na ci liy dimbalee mooy xool ci fi ngay sujoote bañ a xool ca kaw mbaa di téen mbaa xool ci sa wet mbaa xool ci déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan xool fi muy sujoote bu ma saana dem ba nga xam ne nag mi ngi taaya baaraam bi nga xam ne moom lay yëngal muy baaraamu sànnikaay boobu moom lay xool yëngatu googu mu yëngatu nga di ko bàyyi xel dalay wan ne yaa ngi ci julli gi julli gi jeexagut bokk na ci li nga xam ne dana dimbale doomu aadama mu mën a teewlu ci biir julli mooy muy xeetale ci saar yi léeg mu jàng saar wi boo lëgee mu jàng weneen saar boo lëgee waaye julli goo xam ne daanaka génnul ñaari saar naam baax na de naam waaye saari alxuraan yi léeg nga àgg ci saar woo xam ne si dana am lu def ci yow loo xam ne boo yemoon ci saar sàngam du demee noona moo tax alayhi salaatu wa wasalaam daanaka lu ne jàng na ko ci ak julli gi Saïd ibnu Jubayr nee na am na timis goo xam damaa ñëw fekk ko muy jàng sóoratu tuur bi mu agsee ci am xuliqu min gayri shay am humul xaaliqun nee na tuuti saa xol bi génn booba nekkagul sax ab jullit nee booba la lislaam tàbb ci saab xol ba ñu ma dugg ci lislaam bokk na ci li nga xam ne da lay dimbale mooy ñaan yi nga xam ne yonent yàlla Muhammad da ko daan ñaan julli nga leen di xeetale léeg-léeg du awul istiftaax غنى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لك لك غنى اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس لولو ينتي على محمد بمسا كبر دانكو جانغ ليلك مو جانغ لي تشكرك nga baña yam rek subhan rabbil azim subhan leg leg nga ne subuhun qudus rabbul malaikati war ليلغني اللهم لك ركعت وبك اسلمت وبك امنت ولك اسلمت وعليك توكلت انت ربي خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي يونت بي صلى الله عليه وسلم لوكي نيك ديف نكو نونو ايتام بوروكو با سيغي ربنا لك الحمد ليلغ ربنا ولك الحمد ليلغ اللهم ربنا ولك الحمد ليلغ اللهم ربنا ولك الحمد لوكي نيك يونت بي صلى الله عليه وسلم ديف نكو ca sujud ba itam léeg-léeg allahuma laka sajat wa bika amant wa laka aslamt xashaa wajhi lilladi xalaqahu wa sawarahu wa shaqa samaahu wa basarahu fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqin yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci taaya léeg-léeg mu ne attahiyatu mubarakatu salawatu tayibat léeg-léeg mu ne attahiyatu tayibat xeetale googu muy xeetale ci biir loolu dafay dimbale doomu aadama ci biiru teewlu noona itam jàngat bu baax a salafu saalih nañ daan jullee wallahi boo demee di xool julik saxaaba yi boo demee di xool julik taabiyoon da ngay rus da ngay rus fekk ci ñoom nañ ñoo xam nañ daan jullee dafa yéeme mas la ma tunu Bachar mas naa julli ci yenn jàkka joo xam ne dañoo julli ba yàgg am yenn wàll ci jàkka ji daal di mabbu bi mu sëlmalee lay laaj coow li lan la ñu ne ko jàkka ji dafa am wet gu ci mabbu mu ne ma day yëg mu ci woon dara ngir lan teewlu suñu borom subhanahu ngir lan teewlu yu yàlla subhanahu wa taala amir mi nga xam ne ca taabiwoon ya la bokkoon dañuy waxtaana moom ba yàgg ñu ne ko waaw yow ndax julli boo ci julli da nga am mm, sa fu muy dem atu haddisu nafsaka fi sala mu ne mu ne mu ne ndax man am na lu ma gën a bëgg ci julli ba saa xel di ca dem ñu ne ko dee danoo bëgg a wax ne léeg-léeg ngay julli sa xel di nekk ci sa njaboot ak say doom ak yooyu mu daal ne man damaa foogoon ne ci àjjana la seen xel di nekk wala alxurul iin daa wallahi ñu jël ay gobar di ma ko jam muy génn ca geneen wedd moma gënal sama xel di nekk ci lu sunu borom subhanahu wa taala ta kooka day man na am bokku sax ci sahaba yi ma nga bokkon ci tabi'un ya sa'd ibn Muaz ci sahaba yi la bokku mom neena man amna naa jikko yu ma yàlla defal yo xamne su fekkoon ne saa melo saa melo yépp noona la cay mel de kon la kuntu ana ana kon may waajat ben ba moy man suma nekk ci ak julli sama xel du nekk ci lenn lu may julli gi beneen bi su ma déggee yàlla Muhammad wax dara duma am sikki sàkkate ne li ma wax deug la beneen ba ca topp mooy saa yu mu àndee ci ab néew sama xel du nekk ci lu may néew bi lan lañ ko war a laaj lan la war a tontu loolu rek sama xel nekk ba keroog may ñibbiwaat mu ne melokaan yi yàlla may na ma ko maa ngi koy sant su fekkoon ne melokaan yëpp noonu laaj mel kon alhamdulilahi rabbil alamin bokk na ci nga xam mazaayal xushuu mooy torox la ci julli la xam ne moom lay jëriñ doomu aadama nga xam ko dala dimbale lool lool mbokk julli yi sunu borom subhaanahu wa lii mun sant muy ak julli doonut lu wayaf ndax moom la ñuy njëkk a lijjanti ëllëg yowmal qiyaama saa yoo xamee ne yaa ngi julli jàppal ne yaa ngi ci kanam balance suñu borom yàlla yi booy sëlma rek ñu julli gi teg ko ca kaw ca kaw balance yi war koo seete sëriñ bi mu doy waar ñu indi ay balance yàlla teg ko te la ñuy njëkk seet ci doomu aadama mooy julli yim daan julli bu baaxee lépp baax su baaxut kenn du lijjanti waat leneen na yàlla boole ci ñi mën a julli yàlla na suñu borom subhaanahu wa taala dimbale ci julli yàlla na yàlla sama borom dimbale ci julli wallahi boo xoolee ci jamono ji ak ni mu tëddee naam ñëpp ak man a yam ñu ngi julli waaye ndax rek day day waar lool léeg nga xool doomu aadama ba yàgg nga woo ko mu ñëw nga ne ko ah, man dama laa bëggoon a laabiire mu ne ah bismillah nga ne ko ni ngay jullee nii mu ne wallahi damaa nekk ci ay yitte damaa nekk ci ay xat-xat maanaam médecin laa damaa nekk ci ay xat-xat damaa nekk ci ay yitte daa am ñu may xaar ca place ba ñenn ñi sax jëralu leen sax moom julli tëj seen place sot benn yoon fa la nekk nekk nekk nekk te buñ demee ñenn ñi sax moom ñoo ci gën a waar moom dañuy boole liggéeyub jaambur la ñuy yor tusbaar takkusaan timis gee bu ñu nee ba ca ga boole lépp bu ñu ko doon boole te dañ koy teewlu sax waaye parax parax lañ koy def ba mu àgg te nag di yaakaar ëllëg yowmal qiyaam suñu borom yàlla fay la ci julli googee ah yàlla day li mu wax ci alxuraan mooy qad aflaha almuminuun alladina hum fi salatihim xaashiuun julli ñi nga xam ne dañuy teewlu ci seen julli ñooña day am nañ ak ak xusuu ñooña am nañu texe yàlla na ko yàlla